di gërëm di sant bu baax a baax euh, presse bi ci seen teewaay di wax que lu ñu fi woote tey mooy conférence de presse bëggoon waxtaan ak mbokk yi ci ñetti point ñetti point yu ñu ñor bu ci njëkk mooy génn àdduna génn àdduna suñu mbokk bu ñu doon wooyee Basirou Diop don kenn ci suñu njaboot nekkoon tamit kenn ci suñu élément de sécurité don ñu gunge doon gestu suñu kaaraange ñu koy jaalee ay mbokkam di ñaan yàlla na ko yàlla xare ci àjjana yu gën a kawe te di ñaan yàlla tamit yàlla na may ay mbokkam ak ay xaritam xolu muñ te lu metti na lool lu ma ci bëgg a wax nag te kenn xulowuma kenn wante kii di procureur la république bu nekk ndax moom dama bëgg mu wax askanu Sénégal fii fan la génnee àdduna ci l'hôpital wala ci cellule am ci kaso bi ni ah, bu nekk ah, fële ci seen parce que man tout de même kenn du ma gëm ni ne que Bassirou Diop hôpital la ñàkkee bakkanam loolu kenn mënu ma gëm loolu lu ma ci bëgg a wax

di tiire ci kaw ay nit disant parce que ñu ngi ci route nationale une heure du matin jot na kenn gisul kenn dégg lu ñu neex def ndax lan ndax dafa am benn waay bu fi taxaw ne dafa mer ne moom dafa mer Sénégal mu taxaw ministre de l'intérieur ak ministre de la justice mëtuñu ay kilifa comme ci gàttal dafa jàppe boppam buur moom lu mu bëgg rek foog mu demee noonu ministre de l'intérieur daal di activer gars yi waa BIP mooy waa brigade d'intervention polyvalente gars yi sol seen ay tenue tëj tali bi Thiès ci une heure du matin ne man mi Barthélémy Yass man la ñuy jéem a téye parce que apparemment buur gi nee na du tëdd ci lal te jàpp ñu Barthélémy Dias parce que soi-disant Barthélémy Dias ko tere nelaw ci campagne bi wante campagne yéen yàgg ngeen dégg ay campagne yàgg ngeen fekk fi ay campagne mais campagne du leneen dina wax dox jëf amaana am na yuy sew sewaan mën na bañ eh, mën na des fois sax euh, mën na mën na ñàkk naam mais ñëpp xam nañ ko day bokk ci campagne nit ñi dañuy saagante naam jekkul mais ci campagne la bokk fa la dëkk bi toll des fois ñi ñi dañuy sànnante ay xeer même match nawetaan wala làmb dañuy sànnante ay xeer foofu la dëkk bi toll wante loolu mais ci la bokk dañ koy ñaawlu naam na ci la bokk wante loolu mënul justifier yow nga taxaw rek ne bon téye naa convoi fuyee naa convoi bi ñaari waxtu wante Barthélémy Dias nekkul ci convoi bi te jàpp nañ oto yépp te convoi bi bu muy jógee Thiès di dem wuti Dakar Barthélémy Dias yi ngi ci convoi bi wante fan la Barthélémy Dias jaar ñoom xam ba tey xamuñu ko wante yàlla ci mbaaxam su lay aar su lay aar moom rek moo xam fan la lay làq parce que tey heure ak yéen ni noo war na ma fekk ci kaso bi fële ci saint parce que mon bourgui, il n'est pas question Barthélémy de campagne il y a des gens qui ay fait euh, Pastef ñuy wax que Barthélémy du campagne mon petit dem à un niveau fu Sénégalais nous fa gis premier ministre soi-disant di fa dem ba taxaw ne mel ni temps booy rek ngeen dem école balaa ngeen di wàcc gars yi la sa moyen soo wàccee nga xaar ma ci biti dañuy dañuy cógi yow ñu dénk la réew am ci yow yaakaar ngay woote ay cóogi ak di woote ay di fooye sa xel ci gàttal man de xaw ma kañ laa gëj a cóogi su ma doom yi sax bàyyi nañ xeex <laughs> ni la mbir bi demé motax tax Basirou Diop bëgg wax ci lèr genn àdduna wu Basirou Diop du nul dañu fas saisir yu saisir à l'international parce que may la wax ji dama ne Sénégal état de droit la Sénégal dafa signé ratifié ay convention Sénégal kenn amul droit def lu ko fi neex et le Sénégal en 2024 droit de l'amnistie bi may dégg Le Sénégal kenn nawatul de biir kaso et la preuve dans une campagne 41 candidats ont fi mon kon 41 convois ont fait doon daw 41 convois yooyu su ma juumalee ñun kese wala ñu nag peut-être ñeneen te Nous avons ñu fi équipe médicale ak ambulance médicalisée seen biir convoi man ba may jógee Thiès di wuti Dakar su ma convoi amuloon kenn ci convoi bi ku ci feebaroon amuloon te ay journaliste ñu ngi woon ci convoi bi te ñoom mën nañ seede lu may wax kenn gaañuwuloon ci convoi bi ñu arrêté ñu àllu kaañ jaay ñu doole dóor fa ay nit ay bal gaañ fa ay nit yóbbu leen ndar bañ leen faj loolu mooy dëgg bi moo tax tey te ñu ngi may dégg moo tax tey ñu génnaat ay nit ci kaso bi Saint-Louis yóbbu leen ci hôpitalu Saint-Louis te ñu may dégg lu ñu def rek xam naa ko parce que tout de même <laughs> Saint-Louis ci senegal la bokk kon lu xew ci kaso bi xam nañ ko lu xew ci hôpital bi xaw na euh, xam nañ ko juge bi bu doon àtte le 2 décembre juge Bimon, lu ñuy ñaawlu fan délibéré délibéré flagrant délit délibéré nga au-delà de mois au-delà de un mois yow nga japp 80 personnes parce que da nga non wut ben nit té nit ko nga comme mënu gis personnes ci 80 personnes yooyu naam am na ci ay agents de sécurité wante am na ci ay influenceurs am na ci ay chauffeurs xam naa dañu dem ba ci biir ne na nañ jàpp ay góor kese parce que mënuñ jàpp ay jigéen moo tax ñu bàyyi jigéen yi dem loolu kese la woon donc lii dañ koy ñaawlu parce que. Bassirou Diop n'est pas mort deewul ci lu mort naturel Bassirou Diop n'a pas glissé une fois de plus sur un savon Bassirou Bassirou Diop lu lu waral mu aduna moy jaay bu ñu jaay suñu convoi Dor bañ fa lank bañ leen jël leen ñu dem nag ba Basiru ndeysaan ñàkk ci bakkanam ñu bëgg gëmloo askan bi que Basiru dafa ñàkk bakkanam ci hôpital mel mel ni moom dañ ko fa hospitaliser woon depuis un mois wax leen nit ñi dëgg wax leen tamit nit ñi lu tax ngeen am gàccee ba tey ngeen génne ay nit ci kaso bi ci Saint-Louis yóbbu leen ci hôpital bi ci Saint-Louis parce que su ngeen ko defulee tamit malheureusement ils vont aussi mourir moo tax may saluer tamit. posture droit de l'hommiste yu nga xam ne ni ñoom jot nañ fi yëkkati ay kàddu képp kuy yëngatu nag ci mbiru société civile ngay woote mbiru droit de l'homme nga jàpp ni yow ci cas bi amoo ci looy wax na nga ko déggee tamit noonu ñun tamit on en prend acte parce que Sénégal ku nekk am na droit ànd ak ku ko neex ku nekk am na droit faral ku ko neex wante Sénégal je le répète république là ci république am na lu nopp mën a dégg lu xel mën nangu lu ngeen xamné ni amul place am ci république torture amul place am ci république torture amul place am ci république yenn ay journaliste ngeen campagne bi xanaa Barthélémy Dias ak fi amone convoi xanaa mom procureur de la république ak mom ministre de l'intérieur waaw xanaa ñoom gisuñu convoi bu jaaroon Koungheul xeex fa ak député euh, Fanta Sall génn fa ay armes à feu mitraillette yor fa ay fusil à pompe xanaa ñoom gisuñu loolu te yéen ñëpp gis ngeen ko xanaa ministre de l'intérieur gisul paaka yi ak jaas yi fële ci Koungheul xanaa ñoom Barthélémy Dias rek la ñu gis mel ni Sénégal ci 18 millions habitants yooyu mel ni Barthélémy médias rek fi nekk. loolu day mi ngi commencé bëgg a nag euh, doy moo tax ñuy ñaawlu injustice bu mel noonu parce que ñoom lu tax sénégalais yi fal leen ngir yaakaar kese la woon parce que lépp lu mu leen di wax nii ñoom jaar nañ fa kuy toog fi tey di fëgg dënam dina duma tëdd ci lal tànk jàpp leen Barthélémy moom ba ñuy jàpp ay garde corps am yépp te amuloon fitu a këram ñu mu jàpp tey te ñu nekk ndar ñu ci ñu ñu bëri ci ñoom ñoom ñoo yoroon kaaraangeem ci suma ndigal te lu may dëgg te moom du ko weddi kon nag yow lu ñu la tegoon démb lu nga dundoon démb nga ne tey ak lépp sénégalais ànd ak yow di ko xeex pour loolu deñ Sénégal nga ne yow maintenant da ngay wëlbatiku di ko teg sa opposant opposant moom munoo muus wax ne Sénégal bañ a fii ala kulli haal dina am opposant mën nga xeex Barthélémy Dias mën nga jaay doole Barthélémy Dias mën nga def lu la neex wante di nga fi di nga fi fekk tamit ay opposant lii yëpp lu ko waraloon mooy lu ñu defoon Bougane Gueye Dany rek ba ñuy dooree campagne bi ñu taxaw ne Bougane du campagne dañu ne mbëcc biir rus ñu xam ne lu ñu bëgg a téye Bougane dafa ëpp dafa jéggi dayoo ñépp yëkkati seen ay baat ñu teg ko ci suuf wax ci dellu ginnaaw loolu la gars yi namoon Barthélémy Dias bu mu fekkee dernière semaine nu campagne Barthélémy Dias ba mu dugg Dakar yéen ñëpp gis ngeen dakaar na mu demee waa ji ñoroon ñoo campagne benn fan rek Dakar benn fan mu toog fi ñeenti fan Dakar jaral ko du nekk ba taxaw ne day ñëw suma buntu kër di jógi wax dëgg yàlla kenn xamatul li lan mbokk yi ci deuxième point bi ngeen ne ma wax ci waxu lu ñuy woowee radiation wu Barthélémy Dias ci assemblée nationale du Sénégal mais biralaat wax ci balaa ñuy dem voté ji nee naa man fas yéene wu ma toog assemblée nationale ci 15e législature yi nit da ngay xam sa bopp nit tamit da ngay nangu que am na amaana ay étape waxuma da nga ko passé wante am na ay peut-être ay combat yu ma doon mëne man mandat bi mooy troisième fois bañ may tabb assemblée nationale du Sénégal ñuy taxaw fi tey di xataraayu ba ma njëkk duggee assemblée nationale du Sénégal au passage mu leen di rappeler suis venu à kaso dem assemblée man nag ko fi def Sénégal ba may njëkk dégg Barthélémy Dias député à l'Assemblée nationale du Sénégal ils étaient tous dans l'anonymat nekkoon nag ay tout petits fonctionnaires parce que may vais may wax ci rek y a de petits fonctionnaires et y a de grands fonctionnaires fonctionnaire bu nga xam ne ne yow mosoo ilif kenn mosoo yor secrétariat mosoo am salle d'attente mosoo nek chef de service mosoo nek dada, tu es un petit fonctionnaire je suis désolé parce que fu le dëkk tout le wax yi da nga wax du ko raay man ba may doon kilifa biir Sénégal D'ailleurs, yor ay ndombal tu étais un tout petit fonctionnaire d'accord kon nag ñit nu ñu koy waxee ci wolof xar dee weesu mbote voilà loolu kese la xëy bu ma nag député mais luma gëm moy tay ku melni ni Pape Djibril Fall moma gëna gën tay poste député bi parce que Pape Djibril Fall lu bon bon bon jot bu mu am tay pour nekk député ci assemblée nationale jot jooju aw ma Pape Djibril Fall lu bon bon bon bu mu ñëk duggé assemblée nationale dafa dugg mom kessé duggul ak coalition donc mom tay wax deug yalla su par le jeu des alliances nous sommes nangu septième place je crois que le mérite lui revient que tey député à l'Assemblée nationale du Sénégal il sera un excellent parlementaire wante ma beaucoup nekk laajte mbokk je dama leen di laaj tey suñu faloon tey Barthélémy Dias président de la République du Sénégal ban mbindeef moo nekk fii tey biir Sénégal buy xalaat nekk daf may day fokkati suma mandat de président de la République dama leen di laaj rek fan ngeen sukkandiku ba foog ñu ni yéen mën ngeen ñëw tey di ma jaay doole te dangeen ngeen di fokk di tey suma mandat te tegu leen ko ci dëgg tegu leen ko ci yoon lan la yoon wax yoon nee na député moo xam crime wala moo xam délit suñ ko condamné définitivement la ñu wax nee na ministre de l'intérieur ministre de la justice mooy bind président assemblée nationale ñu daal di ko radier daanaka dañ koy génnee ci député yu nekk yu siège assemblée nationale loolu la loi di wax mais loolu mooy lu soxlawoo jàng école pour xam ne ni que lii dañuy wax ci sa mandat mandat bu nga xam ne ni lay condamné da ngaa yor mandat boobu waaw ah, maintenant lañ assemblée nationale le président Bassiou, Diomaye Faye am le droit su ko connaître, Fiak ak ñaari at dissout assemblée bi ñu sommes d'accord nañ ci du noonu maintenant président bassiou Diomaye Faye Fiak ñaari at décidé de dissoudre assemblée bi man ma nekkaat candidat ñu ñu Nous avons encore député Nous mën nañ sukkandikuwaat ci même condamnation pour nous waat dañ ne dañuy ce moment mandat soko pour le troisième pour la pour la troisième fois pour la deuxième fois ensuite euh, tamit askanu Sénégal ministre de la justice lu may ñaawlu ci ministre de la justice mon magistrat mon procureur de la république dossier sacré moom xam na fa est-ce que ay samba boy ñoo fa ñëwoon wala est-ce que ay oustaz ñoo fa ñëwoon bëggoon fa wàccee ay kaamil moom xam na moom ministre de moom ministre de la justice moom xam na bu baax lan mooy condamnation définitive Nous may dégg ministre de la justice xam na est-ce que condamnation définitive mooy condamnation bu cour suprême di proclamer te cour suprême du juger c'est-à-dire cour suprême jugé wul Barthélémy Diaz parce que mon dossier bi du ma ci sori xanaa nga doon naa féq laa wax mais bépp nit bu gëm yàlla muy dégg attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur mu gis film bi gis Barthélémy Diaz gis ay sambaay boo yu dul jeex tey Barthélémy Diaz kese la ñuy wax Barthélémy Diaz kese la ñu àtte Barthélémy Diaz kese la ñu condamné te Barthélémy Diaz kese moo tëdd kaso loolu su nekkee règlement de compte lan la wax leen ma yéen fii journaliste yi ban dossier ngeen xam Sénégal mu nekk ci tribunaux yi depuis plus de douze ans wax leen ma benn dossier ba Sénégal doone Sénégal laa wax ba tey 1960 ba tey wax leen ma benn dossier bu ngeen mës a gis tribunal douze ans ñaata yoon ngeen gis tey l'actuel premier ministre mu ànd ak man ci oto ñuy dem tribunal ci dossier boobu ñaata yoon la condamnation définitive mon ministre de la justice je vais gën a xam ne ni décision d'appel parce que première instance dernier athée, damay taxaw su un avocat taxaw vais plaider d'accord ñu première instance ñu dem deuxième instance un cours d'appel ñu taxawaat foofu cours d'appel nous plaider wante kenn du taxaw cours suprême cour suprême la procédure est-ce que le cour d'appel lu ñu est-ce que jaadu na am est-ce que waa cour d'appel lui ñu def est-ce que jaar na yoon am est-ce que droit wu Barthélémy Dias ay ak ak yelleefu Barthélémy Dias est-ce que respecté nañ ko waaw wala déet la condamnation définitive de Barthélémy Diaz s'est passée en 2017 elle a été proclamée par la cour d'appel les cinq ans sont révolus et passés te xam nañ ko mais ci jaay doole kese la ñu nek Wa yéen maintenant yéen na ngeen da ngeen di radier Barthélémy Diaz.

da ngeen di ne waaw euh, Barthélémy Dias suñ ko condamné maintenant dañ koy dañ koy dañ koy révoqué waaw ba kañ waaw ba bëgg a xam waaw maintenant may laajte di interpeller Sénégalais yi yan ci dëkk bi ngeen dëkk dëkku leen feneen damay laajte est-ce que man Barthélémy médias, est-ce que man kese dañu condamné définitivement ci assemblée nationale bii est-ce que man man rek may député ci assemblée nationale bii bu ñu condamné définitivement fii am nañ fi condamné définitivement ne ko yow a bokk ci ay élection man bañ may condamné kenn waxu ci décision bi man mënuma bokk ci élection te mu may su ma doon bokk ci ay élection bu mu génnee ci kaso bi lu tax candidat damay maintenant ministre de la justice dama koy laaj moom ci 165 députés yi est-ce que moom gisu fa benn député bu fa suspendre mandat est-ce que moom dañ ko condamné définitivement il y a moins de 5 ans am déet est-ce que moom ci condamnation bi est-ce qu'on a bien dit que il est inéligible damay laajte tey tey dama yeewu ñu ne ma waaw man Barthélémy Diaz dañ may def contrainte par corps su ma fayulee vingt cinq millions daanaka ci dëkk bi moom tay nit mën a def lu ko neex ba bëgg a dem ba jël sa bakkan wante su demee ba ñaaw yow ci gàttal yow yaa koy jox ndàmpaay nan la mbir bi demee ñu ne ma su ma fayulee vingt cinq millions yu dañ may contrainte par corps contrainte par corps mu ngi ci gàttal mën naa yeewu suba gars yi ñëw jàpp ma rek yóbbu ma kaso waaw sànq ndeysaan maa ngi taxaw. su ma yaay di ma ne waaw man bugguma xam lu xew maa ngi dem jëli su may urus maa ngi jaay xaw ma lan ma ne ko yaay booy <laughs> ma ne ko wax dëgg yàlla nag man yoruma vingt cinq millions waaw xaw ma nag nu muy demee nag wante ku ma bëgg tamit yóbbu kaso wax dëgg yàlla nag ma yóbbu fu mu miin rek wante lu ma xam wante wante lenn moom xam naa ko danga may jaay doole kese parce que yow tamit dañ laa condamné te yow nga deux cent millions Et au tamit wax dëgg la justice le condamné kon on man fait 25 millions yow tamit ma googu tamit fay tamit 200 millions bu remercie maa remercier suma parce que maa ngi déggee léegi suma xariti nee nañu dañuy dañuy cotiser pour faire 25 millions ah ba may politique ba tey nag wax dëgg yàlla tey am naa du ma metti parce que lu ma gëm mooy dans un état de droit nit mënu la fekk sa biir euh, place nga nekk autorité ñu ñëw ko jël sa bakkan yàlla suturaal pendant 10 ans lu ëpp 10 ans ñu lay toroxal ci biir réew mi tey ñu taxaw ñu la waaw te lu def nii lu nous def nii dafa doon lu ñaaw parce que nous nee nañu wut nañu ci dëkk bi mais gisuñu lenn lu fi Barthélémy Dias moomal boppam ba ñu mën ko jël pour mën ci euh, génne 25 millions yi waxuñu dëgg parce que celui demoon tey di interroger rek ci notaire yi ñoom xam nañ ko am naa kër Akis am naa fa kër maa ngi jënd ëpp na ay ans ans devant notaire devant maître Moustapha Ndiaye suñu nous demoon di interroger les les les offices de notaire ils sauront que moi Barthélémy Diaz, je suis propriétaire d'une maison à Bambilor dans le département de Rufisque à la cité Akis la vérité il y a une volonté manifeste de mettre Barthélémy Diaz en prison ça veut dire gis nañ kër gi wante ñun kër gi intéressé wuñ dem nañ ci compte yi mais moom compte yi amul xaalis homme politique du am xaalis bu mu am lépp da koy bokk ak mbokk yi ñu ne la waa maintenant comme mbir bi ñu la mbir bi demee yow maintenant di nga fay vingt cinq millions par force te comme xam nañ ko yow yoroo vingt cinq millions soo ko fayulee dañ lay dugal ci kaso gi su la dugal ci kaso gi indiwaat ay tappale pour ne waaye dañ lay révoquer ci mairie de Dakar mairie de Dakar fa laay daanelee. wax naa leen bàyyi leen di catu mairie de Dakar bàyyi leen di ko catu euh, ci mairie de Dakar fa lay dafa am ay ñett ñu ñuy fooyee seen xel ñoom nu ñu ko gisee tey mooy comme jaay nañ ko doole ci assemblée nationale jàll na dañ koy jaayaat doole fii ci mairie Dakar fokkati mairie bi ci ay loxo mbokk yi dafa amoon suba benn tante ndeysaan mu ne ma Barthélémy mu ne ma soo toogee ñi di dëkk di la matt rek saa yi boo yeewoo rek mu lay matt rek di dëkk di la matt rek de temps en temps na nga xaw a siñ tuuti nga siñ wan ko ko yow tamit yor nga ay bëñ te yow tamit mën nga matt parce que am na lu kenn dul nangu am na lu doomu gor mënul nangu doomu gor mën na nangu lu ne wante doomu gor du nangu ñu koy toroxal ci ay diggu mbokkam du ko nangu ma bëgg nag wax ci leer dafay bañ ëllëg rek ñu ne Barthélemy dafa mel nii wala Barthélemy dafa mel naa parce que Sénégal du ñu gis ku tooñ non du ñu gis mukk ku tooñ ndeysaan dañuy gis ku fay mairie de Dakar ma bëgg a wax ci leer Comme neex yónni fi inspection yaa xam IGE yaa xam Cour des dafa lu neex gestul parce que loolu yoon may na la ko ci ay sañ ñu nangul la ko ma nekkoon naa maire moo 12 ans ñaata yoon ma audité wante maa ngi sant ne ci na na def na mairie de Dakar bi léegi mu mat fi at maa ba yalla yàlla ma def fi 2 ans et demi ma def lu ñuy woy ci tuba bilan à mi parcours moy dama dem ci askam bi ne leen lii laa leen diggoon ci campagne bi ma len campagne bi dafa amone lu mu don wote moy Dakar bi ñu bokk ne len su ngeen ma falé di ngeen fal naanaan bu am yene ci Dakar ma ne ci juroom ñeenti compétence ñu loi bi jox bu ci nek fi la ci tollu te ñu ngi may dégg ñoom nekkoon nañu ay maire ci seen dëkk yi ñeneen yi sax ci ñoom jéem nañu doon ay maire ci seen dëkk te kenn faru leen fa tey soo demee seen dëkk yi du ngeen fa sax gis benn banque bu ñu fa samp ñoom daal lu ñu xam daal mooy set setal waaw set setal rek maire set setal président set setal premier ministre set setal dama ne ban dëkk bu am solo ci àdduna yéen est-ce que gis ngeen fii ay France ay Macron ay États-Unis ay Donald Trump yooyu dañuy set setal yéen est-ce que xalaat ngeen tey Côte d'Ivoire bii ngeen dem dem seeti président Alassane Ouattara muy wote ay set setal dama ne ba Sénégal sosoo ba tey musu leen fi gis maire bu fi tabax ay centre de dialyse di ko équiper amul. musu leen fi gis maire laa wax musu leen fi gis maire bu fi tabax lycée scientifique et technique yan waa Dakar ba ngeen juddoo ba tey yéen waa Dakar ba ngeen juddoo ba tey benn lycée kese ngeen xam bi Dakar moom mu doon lycée scientifique technique mooy Delafosse te tubaab yi ñoo ko fi liggéey dama ne wolof Njaay nee na saabu du fóot boppam ku munul demul.

maire wala bépp conseil municipal pour nous condamné définitivement pour crime crime là wax crime waxuma délit dañ lay révoquer ce mandat au maire man ci condamnation définitive bi ci affaire bu fusillade de maire Sacré-Cœur lu fa juge bi wax juge bi nee du crime juge bi nee délit maintenant dans ci assemblée nationale nee nañu moo xam délit la moo xam crime la dañ la fay jëlee moo suñ ko defoon ci e législature teg ko ci mais buñ ko def nii bii bii bu ñu def nii amul lenn lu teg ci yoon te képp ku fi taxaw nga nekk lu def dafa ak définitive ça date de 2017. 2017 ndax dëgg yàlla ah ku mu neex nag compter juróom ati yi nañ yàgg na wante kuñ fi condamné te juróom at yi passé gul xam na boppam balaa may dee mu taxaw ne moom day suspendre mandat am te ministre de la justice nee na moom boobu moom gisu ko déggu ko mbokk yi di leen di gërëm di leen di sant fu may daanelee nag mbokk yi mooy. bëgg a wax ak ñu fi nekk te yor tey dëkk bi ne man duma seen noon duma seen noon dama bëgg a wax ci leer yéen seen noon mooy ndóol bu jéggi dayoo bu nekk ci dëkk bi tey te tey sénégalais yi seen loxo jotul seen ginnaaw boobu mooy noon bu njëkk bu ngeen am noon bu ci tegu mooy lu ngeen diggoon ndaw ñi mooy xëyu ndaw ñi fu ngeen ci toll bu ci tegu tamit.

dama ne ñoom mars 2024 ak décembre 2024 nañu wax sénégalais yi lu tax ndox de 23 Nous ko sénégalais comme nous ñu wax dëgg sénégalais Nous nañu wax tamit sénégalais mars 2024 ba décembre 2024 lan nañu def ba courant bi 18 ñoom foofu leen sénégalais yi di xaaree sénégalais xaaruñu leen ci ngeen di jëm a fokk téeméeri Dakar ci loxo Marcelo Diaz sénégalais yi xaaruñu leen ci ay woote ay cooki buntu kër Marcelo Diaz parce que pour ngeen cooki foog ngeen doon ñaar te Marcelo Diaz amul seen jot bëggoon naa tamit wax dëgg yàlla maa ngi dëgg ñeneen ñenn ci ñoom ñu ne ñoom ay responsable lañu kenn kii. bëgguma ñaaw làmmiñ parce que xawma sax lu muy ñuroo ne da moom moo jiite port moom na wax sénégalais juróom-ñetti weer du fi du fi rom lan la def ba 700 sénégalais ak sénégalaises ñàkk seen liggéey ci port de Dakar fii mairie Dakar lu fi yokkuwul mairie Dakar wàññeekuwu fi fii il n'y a pas un employé qui a perdu son travail à la mairie de Dakar amut mairie de Dakar amul baisse ci taux de recouvrement en recette amul baisse ci taux d'investissement. Mérite mairie Dakar les pays du fi j'ai trouvé les bourses à 2 milliards et quelques Urbini bourse qui dépasse 4 milliards Je ne peux may m'aider. bëgguma xam kuy xeex Barthélémy Dias bugguma xam kan moo bokk Pastef bugguma xam kan moo bokkul Pastef bugguma xam kon mooy sàmm sa kàddu kan mu dul sàmm sa kàddu képp kuy yeewu Dakar soo bëggee jàng soo amulee looy dem jàng yow xam nga bu baax que soo ñëwee mege Dakar dañ lay jàppale képp ku yeewu Dakar bugguma xam ku ànd ak man ku àndul ak man képp ku fi feebar soo bëggee faju te tu n'en as pas les moyens soo ñëwee fii dañ lay jàppale man loolu laa gëm liggéey laa gëm ci loolu laa juddu ci loolu lañ ma yare ci loolu laa màggee ci loolu laay dee ci loolu laay sax man xaw ma tappale man xaw ma di wax di waxeet moo tax mën na leen mbokk yi ñu fi nekk lu may wax nii inventé wu ma ko su ngeen demee internet mu ngi nii source bulletin statistique ANSD 2024 ñoom ñoo ne ci juróom-ñetti weer yi ceeb yokku na 15 pour cent ñoom ñoo ne diwlin yokku na 20 pour cent ñoom ñoo ne mburu bi yokk na 10 pour cent ñoom ñoo ne fruits ak légumes yi yokk na 40 pour cent ñoom ñoo ne meew yi ak produits laitiers yokk na 30 pour cent fii da leen sénégalais yi di xaaree. te ngeen góorgóorlu nag xaw a wàññi tuuti tële bi maa ngi leen di gërëm di leen di sant mbokk yi jërë ngeen